salaamaaleykum SBT Média salaamaaleykum téléspectateur SBT Média ñoo ngi leen di nuyu di leen fay di si nuyu ku nekk kenn ku nekk si turam ak santam tey jii ñoo ngi fii nii wax ngumba ngeewul ku na ngumba ngeewul nag a ah, wax ah, dëkk culture dëkk aada dëkk cosaan tey nag dañ fay ñëw uniquement ngir festival bi nga xamante ni moom la ñuy def fii si Jéewul ñu ànd fekk ay ndaanaan yi mag a mag a mag a nag artistes yu fépp fi nga xamante ni mooy si Sénégal région yeeg Dakar fépp nu ñëw fii teew fi festival bi di leen waxtaan nag tey jii nag moom lañ war a def nii léegi si kanam cérémonie officielle bi di leen wax boo leen bëggee gis ay pas yi nga xamante ni moom la artiste comédien di def bientôt léegi si kanam tuuti mag dégtal leen loolu fii si SBT Média sama gars yi bu leen ko tardé waay léegi léegi léegi ma wan leen lii fi xam moo fi xew fii si ngéewul ah ayca sama cameraman man topp ma léegi ñu dem. tey dan maa dénk wàllum. waaw. doo ko woo nga ne ko dan maa liggéeyloo fii. waaw waaw kay nga ne su ko mënee indaaleel. salaamaaleykum yaay booy. maa yaa ngi am jàmm. maa ngi am jàmm la mel ah yaay nii nga def tey si daal nii nga def sañse daal tey laa def ci ngumba ngeewal gi. ah waaw la bëggoon a laaj. ah di la wax tey jii nii yaa ngi si festival bi nga xamante ni mooy festival ngumba ngeewul tey nan nga gisee premier jour bi tey nii nii na ko tàmbalee yoon lan nga si yëg waa waaw dina am sant yàlla julli ci yonante bi kontaan nañ trop. ndax artiste yëpp ñu ngi fi tubaabakàlla macha allah damaara borom baax la di maire maire jàppale na ko maire li lañu soxla ci maire sa waa gox bu ñu xewlee gis la li lañu soxla tubaabakàlla macha allah yëpp rafet na rafet na waaw yaay booy ñoo lay bàyyi xëy na si kanam tuuti xëy na dinañ la gis si baara mbay gi incha allah incha allah waaw ah, ah, sama jigéen la macha allah ñas ah, bis bi seen bis la yéen ñi nga xamante ni yéenay artiste comédien yaak comédienne yi tey yaa ngi ñëw fii su ngeewul tey nii ngooyul organiser festival am bii nii tey ba ban yëg-yëg nga si am exactement. xanaa kontaan ak xol bu sedd di ñaan ko ñaanal yàlla mu mën koy at yu bëree bëri comme ni mu ko defee ci at ci ginnaaw ñu koy fekkee di ko neexal muy neex ndax comme ni nga ko waxee ba su artistes yi la suñu xol sedd ñun ñëpp ñu ñaan yàlla at yu bëree bëri muy demee nii. waaw jërëjëf jërëjëf. ma ne waa ndaanaan ju mag jàngi waa dëgg du neex tan ne kii mooy Dieng Saala waa xam nga ni yéen nag lu waay di gàtt dégg dégg dégg xam nga ni waa jàngi nii waa Dieng Saala waa bis bi na xam nga seen bis la yéen ñi nga xam ne yéenay comédien yi tey bis yi yal ngeen si yéeg tey boo leen gisee ngéewul nu leen teeroo tey jii nii ak euh, waa ak maire bi tey nu mu ñëwee seet si ni waxtaan ak ñun yéen lan ngeen si gis sant yàlla rek ak bëgg ak kontaan ci ngumba li ñu teeroo ku xool li xam ne Ngumba dëkk culture la kon dañuy sawar di ñëw fii ci Ngumba pour accompagner leen ci seen festival bi ndax ñun théâtre rek la ñu am kon Lamino tey fii dina mel ni mbàccum gerte nañ dem ci biir ba ci kanam di nga xam ne lépp dëgg la. ah comme comme ngeen saal tey war nañ la mën a gis si beneen facette de <laughs> waaw salaamaaleykum waaw. waaw kii de sunu père la. waaw père tey bis bi loo si gis père. waaw waaw tey ma see kontaan quoi gis naa rek affaire bi moom mhm. vraiment kontaan naa trop wax dëgg yàlla aspas géejawaay bu ñu ñëwee ba départ si fi ñëw bi war na fi nañ ko war nañ ko a def dóom war na mën a nekk dóom waaw mais kontaan naa trop nag ah, ci ni ji ji ak euh, santaan yu nii def merci waaw jërë waa Mass waa Mass waa dama ne dëgg lu xam nga waa kees a ngi taxaw fa tubaab fa kàlla macha allah ñii képp ku leen gis xam ngeen ni ñoom dañ ne ay artistes comédiens comédiens nga xamante nii ndaje bu ñuy ndaje théâtre bi nga xam bu ñu fa teewee rek boo leen séenee di nga kontaan suñu caméraman bu ñaawal baa ngi jël nañu ay vidéo yu am maanaa waaye dëgg lu neex nag damay jiitoo nag fii nga xamante ne nii mooy suñu jigéen gi. waaw loo gisee bis bi ak euh, maanaam ban yëg-yëg nga si am. waaw bis bi neex na ah lekk neex na. macha allah reer yi neex na. waa ñu ngi nii jëm si tànn béer bi. waaw waaw daal ala daw mi nag. ala daw yàlla moom neex na trop. waaw bëgg loolu la. waa dëgg du neex. sama doom yaay ngi. mas dama ne. tey nag ah dama ne tey ah am ngeen gan YouTube bi nag am ngeen gan. ah sama doom yaay la doom yaay. Ah, bis bi sunu bis la ñun ñi nga xamante ne ñooy comédien ya comédienne ñi. tey ne ba ngeen ñëwee ngéewul ni ngeen gisee ngéewul teeroo leen ban ban yëg-yëg ngeen si am exactement. Euh, xanaa di ci am mbégte ak kontante li tax ñu am mbégte ak kontante dañoo ànd ak sunu grand frère muy sunu metteur en di Cheikh Fédior moom moo jiite délégation bi nga xamante ni moo juge Thiès Cheikh Fédior nekk nii di sunu grand di sunu metteur en aussi tamit wàcce boppam ba nga xamante ni doo ko sax mën a xàmme ak ki nga xamante ni metteur en scène ànd ak tamit sunu mag yi. muy umu wan di sunu yaay tey ànd ak euh, Mansour ànd ak ki nga xamante ne mooy Ami ak euh, ki nga xamante ni euh, mooy ayda waa ñu teew nag ngumba ñu teeluñu teral ñu tatagal ñu waa ñu di ko rafetlu bu baax a baax di am mbégte kontaan kii nag di sunu grand chef waaw waaw waa maître yow bis yi noo ko jisee na waa ngumba nag jën na nga doole de di leen xaar waaw euh, avant tout damay nuyu képp koo xamante ne nii maanaam yaa ngi biir ngumba mhm. ah wax dëgg yàlla di kontaan ci dalal bi nga xamante ne nii waa Ngumba dalal nañu ko waaw sincèrement festival bi neex na loolu aussi tamit di nuyu mbokku internet yi nga xamante ni ñoom ñoo leen di seetaan waaw bon di wax ne ñun ay missionnaire lañu rek xëy na maam Thierno dafa baax rek mais moom lépp moom la daal lépp moom la lépp moom la bilaay walaay moom ku wàcce boppam la aussi xam nga euh, ki ñu fekk si man bii mooy sama troisième année ma fiy ñëw mais euh, maanaam su ma fekkoon ne dama fay ñëw benn année am fi lu ma naqari wala loo xamante ni neexuma fi après kon dootuñu ko dooli quoi maanaam ñun ay missionnaire lañu fépp foo xamante ni sunu kilifa yi nekk Thiès yebal nañ nu fa rek après xam dañuy dem teewi ko fa quoi aussi tamit théâtre bu soxlaa ñun dañuy ñëw taxaw quoi en tant que artiste su comédien mu ngi lay bëggee waat bu baax a baax a baax jaajëf ko kooku nag mooy suñu njaatige léegi nag dañoo bëgg a xool suñu maman bu ñaawul bii macha allah xam ngeen ni ngumba ngeewul su ko defee war ngeen a xam ne waa Thiès tuutalul ñu seen bi si benn yoon maman maa yaa ngi am jàmm ngi leen di nuyu di leen ziar boo di leen sant ginnaaw ba ñu sant yàlla julli ci Seydina Mouhamed sang-sang yi sallallahu alayhi wa sallam ah, di sant sunuy waajur bu baax a baax ah, di leen di leen sant yéen ñi macha allah di kontaan tamit ci bi nga xamante ni dañu ko invité wax dëgg yàlla bég nañu lool sax waaw macha allah. waaw maman tey di ñi nga gis Ngoumba Ngeewul jénnee ko massivement ngir ñun ñi nga xamante ni ñooy comédiens yi ak euh, comédiennes yi yow tey ban yëg-yëg nga si am. kontante comme yëg-yëg bi ci ñëpp am euh, daal macha allah sunu jikko la ñun fam jenn fuñ daje fu ne ah, xam nga mooy loolu waaw ah, ah, dañuy xappe wane sunu bopp ndeysaan ndeysaan waaw tey maman comme tey yow si lan lan mën a xaar ceebu jën wala baara mbay <laughs> dañuy jàng rek nag dañuy jàng xam nga ay kii yu ndaw lañu rek dañuy jàng rek incha allah. waaw gis nga yëf yaa ngi noonu ñii ñooy waa kees macha allah kenn du ñoom sur seen beeg téléfilm bi saabo saa boo leen seetaanee sa dafay sedd waaw ba tey duñ fa yem ndax dañuy bëgg trop trop trop trop nekk ak euh, sunu mbokk comédien yi nga xamante ne ñoom ñooy waa kees ndax képp ku leen gis sur scène ak li nga xamante ne nii mooy téléfilm moom da ngay kontaan trop gars yi nuyu nañ leen. ñoom lay fay Lamine. maa yéen a ngi am jàmm. baax a baax a baax. waa tey bis bi seen bis la. tey accueil bi nga xamante moom la lañ njóorul accueil tey yéen ban yëg-yëg ngeen si am. waaw yëg-yëg gi ñu si am doon na loo xamante ni mënuñu ko sax nettali parce que ñun amuñu lu dul lii kon ku ñu woo si lay wuyu ji mbir mi sotti si la ak def si. ndax damaa jàpp ne ku bëgg fu fanaan ak ku bëgg ku ko wéetal tëjal buntu bi di leen boole kon tëjal buntu bi dañu boole ñun ak ñii parce que ñun benn lañu bis bi nag riis na pare doolof Njaay it nee na bisu tut ah, a yàlla baax na nañ sant yàlla mais fii nii. waaw noo du yomb. comme jiw bi di ko wàccee. non su ma waxaatee suba na jeex na. waa kii nag mooy rax. gars yi. nuyu naa la frère. waaw frère Lamine maa di la delloo nuyoo bi. Euh, tey da ngaa téye drapeau waaye teewal ko fi. tey ban yëg-yëg nga am tey exactement ba nga wàccee fii nga xamante ni mooy ngéwul. waaw xam nga Lamine tey danoo sol ñaari casque. di ci compagnie théâtrale bët bi nekk di ziar bu baax a baax sunu kilifa sunu metteur en scène Arouna Mbodj mi nu tette wan yoon wi di euh, solaat beneen casquette di euh, teewal Géejawaay nekk au niveau de Arco de Géejawaay ci sunu kilifa euh, Ibou Fall ak Cheikh Mbacke Niass di leen ziar bu baax a baax ñoom itam dooleel nañ ñu war nañ ñu yoon bi wax dëgg fa neex yàlla ñun nag buñ teewee fii tey dañ fee war a teew nu fi teewul dañu fee war a teew ndax ay homme de culture lañu ay artiste comédien lañu kon fépp foo xamante ne aar bi woo nañu fa rek dañ faa war a ñëw def fa suñu kéem kattan ndax euh, ngumba yaatu na te yàgg na noo woote mbépét la woon nu ñëw euh, marqué fi sunu tuus ndax ay artistes comédiens lañu te festival bu am solo la bu nu marqué la waaw. mais tey mooy premier jour bi muy euh, muy journée bi nga xamante ne nii euh, lancement la te sabar lañ koy def mais demee mooy spectacle yi tey yéen nga xamante ne waa bët yéen a jógee Géejawaay tey ban façon spectacle la ni la la maanaam ngeen ngeen jox ngeen bëgg a jox waa Ngoumba Ngeewul. waaw euh, parce que festival bi. yaakaar naa buñ ko taxawalee c'est pour donner la leçon pour les autres parce que euh, dafa am solo message la ñuy joxe waaye ci biir message bi dinañ def suñu kéem kantan ba te public bi nu ñuy tewee public mooy lu ñuy def ñu def ci lu comique loo xam ne ñoom dina prêter seen attention ba suñuy message dinañ ko mën a jàllale nun ko bëggee quoi. ah comme comme kom comme nu mun a wax ni tey Ngoumba Ngeewul war na noo war na noo mun a xaar demee spectacle yi nga xamante ne ni macha allah lu leen neex lay doon lii des seen xel lu leen di marqué lay doon pour nu yàkkamti ah, déwén ñu yàkkamtiwaat bët mun a teewaat fii. waaw effectivement loolu dafa am te loolu la ñu andi incha allah. dinañ fi def dinañ fi marqué suñu empreinte dinañ fi def loo xam ne bu dinañ yàkkamti maanaam ñu ñu dikkaat fi quoi defaat lu mel nii. ok téléspectateur a ah, ah, xam ngeen ne yéen ñu ko dégg yéen a ko déggandoo nii muy lu neex li nga xamante ni nii moom la waa euh, bët war a indi fi nga xamante ni mooy ñu mëngeewul di leen wax na nag yëf yi dañuy dooroo deew ah, si biir dina wàcc dina neex su ko defee si kanam tuuti ñu dégg te leen yeneen naanaan yi nga xam ne ñooñu si biir tey ngeen gis ay paré dans artiste comédien yi nga xamante ni nii yi ngeen mës a gis maa leen ko wax waa kay. waaw waaw maaleykum salaam. ah papa noo leen def. Euh, kontaan rek egsi ci jàmm dal ci jàmm ak am mbégte mu yaatu moo xam ne nii euh, xamuñu fu mu toll. waaye nag kontaan nan daal vraiment kontaan nañ ci festival bi kontaan nañ ci Mara kontaan ci Cheikh Mbacke waaye nag lu jin njaaga njaag mooy Modou Fall ndax Modou Fall euh, bu fekkoon na. dafa jiite gone yi di leen fa kastal wala mu leen di iñaane di lépp du am mais dafa ànd ak ay doomu ndeyam ñoom alfa ak euh, nag di ñaanal tamit meer leena bi nga xam ne mooy sunu yaay ñun ñëpp yàlla may ko gudd fan ak wér waaw di gërëm tamit sama xarit bi nga xam ne nii mooy sama genn wàll genn wàll dafa am muy Cheikh Aline Sène ak Yande Gueye mii di gërëm tamit sunu président Arcos départemental muy Aline Badara Diop lu jin jaaga tamit moom mooy jaag kontaan nañ ci artistes yëpp ñoo ngi sant yàlla bu baax a baax yàlla nañ ko fekkee déwén ak déwénaati jég. voilà muy contentement bu rëy bu ñuy am sumu papa ji nii xam ngeen mbégte la ñuy am suñu dajee fi nga xamante ne mooy si langue yi mel nii ñoom ñu leen di seen contentement la. comme li muy wax nii nii ay kàddu gor kàddu cant yi mu yëkkati nii leen ñaanal jàmm ak salaam yeneen yu ñu koy dafay at i at ñoom itam yooyu fekk leen ñu fiy ñëw di fi teew comme nii papa tey soo amee ah, moo baat gi nga xamante ni nii moom ngay gën a ñaax ñi nga xamante ni ñooy maara ak ñu leen encadré yooyu yan kàddu lay doon. Euh, li ma leen di gën a ñaaxe mooy ñu gën a góorgóorlu ci aar bi ndax euh, yàlla def na ñun mag ñi fi newoon. ñoo ngi doon góorgóorlu ba léegi bàyyeegunu pour bañ rek yëf yi sooxe moo tax waaw di tamit di fàttaliku ñun ñëpp artistes yëpp di fàttaliku Demba Fall mi nga xam ni ah, doon sama nattangoo ñuy ànd fu ne di ànd fu ne ba yàlla tey ji yàlla ah, yóbbu ko àjjana yàlla na yàlla def àjjanaam neex waaw yàlla na alaaxiraam dàq àddunaam yàlla bu mu yàlla bu mu rëccu lépp loo xam ne nii defoon na ko waaw gune yi daal nañ gën a góorgóorlu ndax bu ñu góorgóorloo rek suñu xol na sedd waaw ñoo ngi leen di ñaanal ñoom ñëpp ñu gudd fan ak wér aar bi gën a yokk